Pape Malick merci pour la question euh, je pense c'est pertinent mais ça montre un peu peut-être que euh, li direction bi nekk di def vous êtes tombé aussi si piège boobu dañuy non li ñu wax rek laa la effectivement c'est ce que je dis ñoom dañu def nekk di def une mauvaise communication en accentuant les choses sur carburant wala des des acquis yoo xam ni personnel bi da koy laaj pour nekkin bu gën a baax je rappelle que nous sommes sur le projet depuis dix ans toog nañu un an sans salaire kuy toog un an sans salaire est-ce que dina réclamer des acquis c'est une question qui répond à votre question beneen bi mooy moom moo ni dafa am jafe-jafe xaalis ñun on était la avec Amadou Abdoulaye Diop presque cinq ans mhm. coow amul même si personnel bi mu ngi ñëw à partir de deux mille vingt et mais la direction mu ngi fi woon ci trois ans avant yi ñu nekk di négocier les premiers points de négociation avec la direction moo doon condition de travail à Dakar et surtout pour no collègues dans les centre émetteurs soo demee ci centre émetteur yi bu ñu la nee lii centre émetteur pour TDS la bi nga xam ni moo tax nit ñi war a mën a seetaan télé partout hmm. da ngay fermer les yeux tey kuy yaxanal moom moo ni dañu am problème mu xaalis mais ñun on est les premiers garants de la société du ñu teg société bi li nga xam ni da koy daaneel mais kuy yaxanal di nga jël marché bu nekkoon à moins de dix millions l'année. Mm. yóbbu ko à vingt cinq millions pour sa sœur. loolu doy na waar. loolu benn la kuy yaxanal nga am problème mu xaalis mais dafa am la loi est claire ay acquis on ne remet pas en cause des acquis. loolu la loi le dit et est claire moom bu fekkee day respecter les instructions de son excellence le président de la bi nga xam ne dafa am vision claire ci projet bi la vision du président elle est claire mais malheureusement la vision de la directrice n'est pas claire xamul lui vision de président de la République je, je, je, je termine juste les premiers points qui ont été posés muy les conditions de travail tey ñu jógee ci marché bi dem au-delà au moment où on parle de ça démb ñu recruter un CG un contrôleur de gestion bi nga xam ni mu ngi jógee nekk à la retraite agent à la retraite d'accord mais moment boobu ñu ngi licencier de des collègues dans les régions des collègues jeunes bi nga xam ni société bi dal leen soxla pour ñu mën a matal mission bi